poŋ lañu gal gàll ci CSW 63 bi ci New York diggante jigéen ñi nek ci diaspora bi di bitim réew ak ministère de la femme ak itam fez di fonds bi nga xamante bi ay koppar la yu jàppale doomi Sénégal yi nek bitim réew ministre de la femme ci boppam mo ñëw ngi sédé jëf ji nga xamante bi président Macky Sall jëf nako té lépp mu teg ko ci loxo Naata Samb Mbacke ngir fexé ba jox jigéen. àqam ak yelleefam ba mu mën a moom boppam ci lépp. président Macky Sall bu xoolee loolu wax dëgg yàlla ba jël lépp ñi loolu yëpp doyuma ñi fi amoon salon seen salon faay ñi fi amoon restaurant seen restaurant am problème ñi nga xam ne ñoo ñëpp amoon nañu problème damay ñëw financer leen suqali leen ñu mun a taxawaat vraiment loolu président bu am yërmande rek moo koy def. bi financement bi amee ñun ñi financé nga dañoo fay ba ëppal te ñëpp loolu la ñu war a def. ndax tamit ñu jox la bo delo day gëna a baax rek. man mi bokku na ci ñinga financer ma ngi jaay samay ciub ku ne xamna na ne ciub rek lay jaay dama daan liggéey ci restaurant yi bay bëgga dé waye tuar kala ma sha allah bi nga ñëwé financer ñu kenn ku nekk am nga ci lo japp jigen ñi nekk ci diaspora bi lenn dong mo nekkon seen yité deug deug té loolu nguuru Sénégal indi na ci safara muy financement ñu jógee Manhattan Brooklyn Bronx ak yeneen gox ngir ñëw sédé loolu waye tamit. muy taxawaay bu am solo boo xamante ni bii nguuru Sénégal taxaw na ko ci seen wet. donc bu mu nee 200 millions yi nañ ko yóbbu yàlla def dafa def liste 10 pays mais fii mooy premier pays bu ñu financé boobu temps liste bi mu ngi woon ci presque 240 ñu indi 200 millions yi ànd ak waa trésor xool ni ñu ko joxee mu nekkoon cérémonie bu rëy fii cérémonie yi gën a rëy fii lañ ko njëkk def ak Italie ak France. financement bi tam madame ministre dañ koo def sans discrimination musuñu ko def ci politique parce que président de la république a ne que demandé rek nañ ko jox su amee su fonds yi Je ma di leen waxal ne indiwaat nañ fi presque 5 chèques après les 200 millions nga xam en marge de CSW. assemblée nationale sax mi nga xamante ni bii ñoom ñooy budget bi xam xamle nañu ni kat li jigen ñi am fi ci New York dinañ dem ci assemblée. fexe ba ñu yokkal leen ko. tey bu ñu àndeek yow ñëw fii ci New York nga woo ñi nga xam ne financer nga leen jox leen kàddu ñu wax ne financement yooyu kat am na njëriñ ci ñun suqale na suñuy activité ñun député yi dañ koy noté bu baax a baax te ñu ngi lay jox garantie ne incha allahu bi bu ñu demee assemblée nationale dinañu porter plaidoyer bi pour que montant wu fees bi ñu yokk ko ba mu mën a daj jigéen ñi nekk ci diaspora bi yëpp. gannaaw premier financement boobu nga xamante ni bii amoon na ci 2014 muy wéy fii ci États-Unis mu am yeneen financement yoo xamante ni bii dina ñëw te loolu lépp ngir gën a mën a jox jigéen ñi seen gëdd ndax kat financement la yoo xamante ni bii fas yéene wu la bàyyi benn jigéen gannaaw.